boo yokkee courant bi boulanger yaa ngi ñuy menacé. Mm-hmm. ne dañuy yokk. Mm-hmm. bu ñu yokkee carburant bi euh, transport en commun yi dina yokk. Mm-hmm. bu courant bi yokkoo les petites et moyennes entreprises euh, am na ñoo xam ne dinañ dootuñu mën a supporter. li nga xam ne moom mooy la poche de dépense que constitue euh, l'électricité et donc répercussions yi dafa dafa bari et finalement on se demande c'est quoi la politique sociale La politique sociale, c'est d'atténuer l'impact des prix. La politique sociale, c'est de permettre au Sénégalais de, de, de, de manger moins cher, euh, de boire de l'eau moins chère, euh, d'utiliser de, l'électricité moins, moins, moins chère. État du Sénégal ne moom dafa bëgg def politique sociale ñu clamé 2023 année sociale d'ailleurs ne dañoo bëgg a def le maximum d'argent euh, dans la poche euh, du, du, du Sénégalais vulnérable après état bi ñëw yokk yokk denrée bu essentiel comme électricité même na war nga d'accord une chose waaw li nga wax ni yëpp war nga d'accord ne yor réew métti na torop ah torop d'accord nga si ma ne torop c'est la chose la plus complexe moo tax les plaisantins là yi naan dem présidence xam non non du loolu man du leçon boobu laay tirer ah. mooy kii ñu teg si réew mi si bopp réew mi dañ ko war a jàppale dooleel ko et mooy lu lu lu. moom moo ñu war a jàppale. dooleel non non non ndax ñun dañ ko teg ci ko lépp. non non non boobu. moom moo ñu war a jàppale dooleel loolu c'est trop réducteur si lu ñu war a def. ah non ñun dañ ko xaaral mu jàppale ñu dooleel non non may mun a ma wax la gis nga man yàlla def na côtoyé naa ko man. dama ñëw en 2017 si mbir mi lan moo ma si dugal 2017 boobu j'étais rek xalaatuma sax bokk si affaire yi nii ma ñëw ma xool comment on l'attaquait comment on tëkkee lu ñuy def tout ça wala ah ma ne waaw mais kii comme man gis naa ne lii nii au moins muy def si secteur de l'énergie baax na te war nañ ko mun a pousser jàppale ko si pour mu gën ko mun a dëgëral mais nañ ñëw ñu indil ko suñu expertise au moins ñu xam ne lii buñ si jàppee ñun ñëpp ñu génn si man sama objectif bu ma koy jàppale xam nga lan la woon j'avais qu'un seul objectif ma ne politique énergétique bii mu teg te ma gis ne mooy yoon bi nañ ko jàppale ba mu yeggali ko après 2019 ñu régler problème mu électricité définitivement dans ce pays loolu rek moo ma yóbbu ci ginnaaw et aujourd'hui li ngay wax nii noonu la c'est-à-dire et même souvent dama koy rappeler mes collaborateurs je leur ai dit fait le plus difficile le plus difficile de c'est de sortir le pays di rationnement de l'électricité à l'abondance mais gis nga problème yi ñuy am mooy gën a compliqué et quand on a fait le benchmarking avec d'autres sociétés mooy gis nga lu ngay wax nii dañuy dépenser beaucoup d' argent résultat bi di yokk noonu proportionnellement mais dinañ dem foo xam ne dañuy tendre vers lu ñuy wax asymptote bi si si mathématique c' à dire on va mettre beaucoup d' argent mais résultat bi day ndaw parce que xam nga fan lañ toll mooy client bi danaan la man sama facture bi alors que bu njëkk ba problème bu may réglé zone bi coupé na ma envoyé bëm tuloo le problème est pour tout le monde mais maintenant nag les problèmes vont être plus complexes plus diversifié et plus personnalisé loolu moo tax man si sama gis-gis ma ne bu ñu naree yegg foofu nag il faut que nag ñu changer relation ak consommateur bi. il faut ñu gën a déglu consommateur il faut ñu gën a xam lan mooy préoccupation mais surtout même il faut ñu gën a jege consommateur bi et aujourd'hui man loolu mooy sama mission loolu mooy message bi nga xam ne. le personnel de Sénélec ñun si loolu lañ taxaw pour que ñu mission service public bi nga xam ne ñun ñaar ñoo ko seq Sénélec ak client bi ñu def ko pour njëriñu Sénégal.